ñoom tey ban arbitrage lañ lañ mën a def entre la promesse qu'ils ont euh, qu'ils ont faite mhm. bu ñu ñëwee rek l'une des premières mesures euh, c'est la réduction du coût de la vie mhm. dugal ko ci boppu population yi mhm. euh, ban arbitrage la ñuy def xanaa yow da nga leen di euh, wutal leen <laughs> argumentaire comment expliquer à ces à ces sénégalais là que non seulement ñu réduire le coût de la de la de la vie mais dañ leen di appliquer la véracité euh, des des des des des prix des denrées euh, du prix de l'électricité des prix gaziers et pétroliers. bon pour man li ëpp solo dans un premier temps li ñu war a njëkk a def mooy jéem a xool les les les les eh, day am produit yoo xamante ni mën na am ay coûts yoo xamante ni dafa dafa nekk ci produit bi te te waru cee nekk mën na am ay surcoût ci benn produit bi moo am ay surcoût mën na am ay ay yoo xamante ne rek yoo jox mën nañ ko luñ ci mën a dindi nañ ko dindi mais pour man le langage de vérité day yombal gouvernement liggéeyam. mais ça veut dire une défiscalisation euh, euh, pleine. mais euh, te te loolu tamit ba tey état dina perte par exemple comme le riz euh, dañ ko défiscaliser noonu non non cest par exemple mën na am ci. ceeb bi ni muy jógee douane parce que parfois day am ay surcoût dans certains produits mën nga mën na ay surcoût yoo xamante ni bu nit ñuy toogee waxtaan secteur bi yëpp tout la chaine bu ñu waxee wax yi dañ xam ni coût bi mën nañ koo génnee te du gaañ. mais l'État donc day obligé renoncer à des mën na bay nekk taxe cest à que euh, par exemple état mën na xool foo xamante ni man li may euh, taxe moom ay impôt bu ko état commencé bàyyi rek. problème mooy day creuser déficit budgétaire am xam nga loolu mooy arbitrage bu état bi bu état bi di def mais état bu ñëw bees sénégalais yi bon ñu bëri duñu dañ leen naan defal li kële defoon mais boo ko defee rek mu bàyyi fi lu mu lu mu bàyyi woon maintenant dans un premier temps mën nga jéem a soulager population bi mais avec un langage de vérité boo xamante ni ah lii kat dinaa ko jéem mais su ma ci yàggee dinaa def chaque année dinaa leb sept huit cent a neuf cent milliards pour def ko. te 800 900 milliards am na fu mu xaj su ma sañoon ñu ñu def ay arbitrage yoo xamante ni xaalis bi ñu subventionné ñu investir ko dans dans l' agriculture dans quelque chose boo xamante ni dans 3 ans 4 ans dépendance bi ñu am à l' étranger euh, à l' extérieur sur les produits parce que looy lekk ak looy naan waroo ko waroo ko waroo ko waroo koo jéggaani. alors ils ont des devant eux des législatives. ils mmh. doivent forcément remporter. bu fekkee nañu bu fekkee ne bëgg nañu gouverner à l'aise mhm. ils ont des élections locales mhm. ils ont une présidentielle euh, ma Macky Abdoulaye Wade dafa ñëw am septennat mhm. Macky Sall ñëw am septennat ñoom ils n'ont que cinq ans est-ce que réforme la boo xam ne est-ce que euh, réorientation la boo xam ne euh, xeej na fi parce que aussi il faut être réaliste balaa nga naan naan naam ne man nag man li ma gëm mooy il faut que mu benn génération de sacrifice il faut que mu am benn génération qui se qui va se sacrifier buy sacrifier pour que les choses changent pour de bon gis nga may mun a bu équipe bi ñëwee def lu ñëpp daan def oh waaw dinañ nekk fii rek di mais rek régler benn affaire mais il faut que Sénégal may mun a mënuñoo jël suñu devise yëpp di di di di enrichir baykatu jàmbur il faut que ñu trouver solution à l'intérieur maintenant nag pour moi trouver solution mooy jéem a xool nan ngay def ba sa sécurité alimentaire nga assurer ko à l'intérieur de ton pays parce que chaque fois bu dee da nga dépendre à l'étranger chaque fois boo amee choc exogène parce que àdduna bi dañoo toog foo xamante ni dañoo jàppoon ni certains chocs yu metti par dix ans quinze ans vingt ans lay ñëw comme la Covid mais Covid dafa ñëw mu metti ñu yaakaar ni jeex na rek guerre russo-ukrainienne bi ñëw tey yàlla a la guerre euh, Palestine Israël la mer rouge maintenant waa Yémen commencé di bloquer. Euh, gars yi commencé nañ nee nañ fret bi ça coûte plus cher. tout à fait parce que les bateaux commencent à contourner. tout à fait léegi ça veut que les prix encore devenir plus cher maintenant est-ce que da ngay dépendre ci loolu wala dangay nangu nit ñi toog ñëpp Sénégal ñëpp nangu. presse bi aussi jàppale ci régime bi moo tax xam naa ni seen waxtaan foo mu neex. jàpp fan eh, <laughs> jàpp de <laughs> du ñu jàpp. non déedéet <laughs> parce que nga xamante ni non parce que nit ñi. parce que il faut nit ñi xam. bu ñu bëggee ñu jàpp nañu bàyyi quarante milliards yi bu ñu bàyyee quarante milliards yi. ñu ne eh les gars ñu jëm ak dafa sori. mais bu ñu ko bàyyiwoon dañu jàpp. non parce que non ah. loolu bu amul le le le grand problème mooy. pour moi il faut il faut il faut il faut il faut il faut communiquer expliquer nit ñi ne subvention moo gën a yomb. il faut nekk une volonté commune. commune Sénégal yi parce que dëkk yëpp ci àdduna euh, boo amee politique teg ko dafa am explication bu am doole bu koy porté ba taximan bi bu ci nit duggee mën koo expliquer Sénégal fan la bëgg a jëm mais tey Sénégal war nañoo xam ni àdduna bi day gën di metti mu neex leen mu naqal leen àdduna bi day gën di métti mais Xaadim xam nga Macky Sall bi mu ñëwee euh, wàññi na les les les denrées Euh, entamer euh, une politique de défiscalisation euh, sur certains produits de, de, de première nécessité euh, euh, et à côté mu dem def un premier groupe consultatif leb 9000 milliards ñëw réaliser de grands projets il n'y pas possibilité tout en maintenant euh, ces subventions là nga xam ne mun nañ ko wàññi de manière grad graduelle d'année en année mm-hmm. ñoom ñu dem mobiliser de l'argent non pas pour mettre dans les infrastructures mais pour mettre dans l'agriculture euh, dans la pêche dans l'élevage Euh, ak euh, pour euh, pour pour pour une sécurité alimentaire est-ce est-ce mm-hmm. que aussi possibilité boobu amul parce que aujourd'hui mm-hmm. réew mi metti na metti boo xam ne tey ji tey ceeb bi mm-hmm. diwlin bi suukar bi gaz bi courant bi ndox mi boo ko wàññiwul boo boo appliquer sénégalais yi véracité des prix on risque d'assister à une implosion sociale loolu nag mooy mooy mooy état état day day arbitrer day gérer li nga wax dafa am solo à tel point que ala kulli alin état bi dina génn wuti xaalis wala mu toog fii invité les bailleurs wut xaalis pour investir bu baax atteindre. dans le secteur primaire. dans le secteur primaire loolu moom moom ala kulli état dina ko def parce que euh, def nañ ko seen projet mais maintenant un projet c'est une chose mais une fois que nga jël état. il faut nga xam état bi nga jël sa sa sa fii état bi toll nga jëm a xool maintenant euh, état li nga bëgg ak li fii état bi toll parce que état bi il faut nga natt euh, fa nga ko doon xaaree parce que état kenn mënu koo xam tant que ñëw ba tiim ko parce que yaa yaa di information yoo xamante ni état du ko génne du ko partagé maintenant boo toogee rek nga koy boo toogee rek nga koy xam moo tax munoo am projet projet plan ba ñëw rek na ko taf rek samp ko waaw yenn saa yi ñu lu tax ñëw rek doxul ñëw rek doxal mënoo doxal parce que ba nga booy ñëw budget bi ngay doxalee fi nga ko fekk mënoo ko mënoo ko changer maintenant il faut prendre le man li ma gëm il faut prendre le temps que ça prendra xool ba Séné waxtaan ak Sénégalais ba Sénégalais yi d'accord man gis nga may mun a Sénégal pour man naqarewul a defar mais il faut nga wax ak nit ñi. sensibiliser leen waaw parce que nit ñi bu ñu gisee ni yow te man muy Ousmane Sonko muy eh, Diomaye mënuma am jàpp ci ñoom ni ñeme nañoo lekk dërëmu Sénégal. mënuma koo mënuma koo xalaat ça veut que ni donc euh, même bu ñuy juumee sax mooy dañ doon jéem def lu baax mais du ñu ñoo xamante dañuy ñëw pour créer ay stratégie pour sàcc xaalis wala am fu ñu ko dugal à partir de ce moment euh, gis nga sincérité boobu transparence boobu nañu wax ak sénégalais yi noonu de deux choses l'une wa ilaa ñu def ñu ñëpp di def taf yëngal bàyyi fi li fi Abdoulaye Wade bàyyi ci bor wala Macky Sall li mu fi bàyyi ci bor parce que investissement yu président Macky Sall def oui di ne moo fi def lii moo fi def lii mais l'économiste lui da la naan à quel prix à quel prix à quel prix maintenant tey suñu problème mooy dañoo problème pour man au lieu au lieu ñuy chercher sax autosuffisance alimentaire mais une éducation alimentaire il faut que muy mun a ñu nit ñi ñu yar leen ci lekk ak naan parce ñun suñu damay naan suñu waajur yi xamuñu woon pizza xamuñu woon hamburger xamuñu woon shawarma léegi dafa bokk suñu éducation alimentaire Sénégal il faut que ñu xam def état des lieux ressources yi fi yi fi génne yëpp ñu jëm a xool nan la ñuy def par rapport au besoins national mais manche je suis pas tenu chaque jour ma lekk ceeb ak ceeb ceeb ceeb ceeb ceeb mais euh, on a c'est am na am na yoo xamante ni pour man. le gouvernement que... qui qui aura qui réussira euh, ce ce miracle là. non mais ah. mais, mais xam nga ceeb il a fallu que je pense que c'était Vietnam moo amoon surplus français indi indi ko fi ba ñu ba ñu dem ba lang ci mais pour man war nañoo commencer di di xalaate loolu euh, parce que adduna bi dafa toll foo xamante ni. Euh, li liñ naan neex moom àdduna bi dootu ko defati tey gën a metti parce que population yi nit ñi dañu gën a yokk problème yi di gën a bari maintenant il faut nga nangoo chercher tes solutions d'une manière endogène à l'intérieur de ton pays loolu nag pour man explication la communication la waxtaan la. mais mais la solution ñun on a une vallée des fleuves. on a des terres il, il, de les emblaver de faire les investissements les <coughs> investissements nécessaires. oui c'est que xam nga loolu loolu mooy erreur lu lu président Macky def ci yenn investissement parce que boo amee ndox am suuf bay du du poser problème mais li poser problème mooy transporter transport maintenant bu bu amul accès xam nga benn camion bu ñëwee def vingt tonnes wala trente tonnes chargé ngay indi dakaar bateau bi jógee Chine ñëw def 1000 tonnes xam nga ko kiy jëlee fële fële na la ay coom day cher parce que ay ay 20 lay lay lay transporter. que le 1000 tonnes lay indi benn yoon. moo tax li ceeb bi ceeb bi jógee Chine mooy gën a yomb. que ceeb bi ñu bay ci ci donc état nag mooy naan ah man damay créer ay voies ay ay infrastructures économiques ay voies yoo xamante ni damay permettre kuy kuy bayee euh, sur la vallée xam ni am na benn. Euh, corridor voilà corridor boo xamante ni dootul taxaw fexe ba ceeb bi buñ ko jëndee euh, Chine am yoo xamante ni mu jóge ci port bi ñu wàcce ko port Kaolack wala ñu wàcc ko port Ziguinchor il faut que ñu utiliser moyens yooyu wala ñu taxé wala ñu taxé le ce ce riz là da ngay commencé xam nga état loolu la ñu woowee un état stratège état mooy yow léegi boo amee ay intérêt rek bu say intérêt taxawee chaque fois que yaa ngi koy xoolal sikk ni chinois yi def ni ni franc européens yi européens yi bu leen chinois yi commencé taxaw dañuy créer seen ISO 9000 def ci lu leen neex xool li chinois yi manqué ñu ne loolu lañu bëgg lu amul lii du fi dugg yooyu c'est des yoo xamante mën na nekk mais il faut mu am benn volonté bu ko lal pour man bu ñu nekkul ci man daal mënuma gëm ñu jàll ci moment de confort sans jóge ci sans traverser moment d'inconfort man gëwma réew mi di neex di neex di neex di xëy suba di neex foo moom benn moment boo xam ne dañu am benn stop ñu wàññi suñu consommation dañu wàññi suñu dépendance mais au profit dans deux ans trois ans quatre ans nit ñi buñ ko nangoo pour man Sénégalais yi Sénégalais du peuple bu naqaree waxal maintenant naxante man pour man bu amul rek nga ne ah lii kat at yi dina metti lii lañ bëgg a def mais maintenant buñ ko deful nag dinañ koy wàcc chaque année ndax def ko dafa metti dafa dafa demander courage politique courage boobu nag dafa am ay conséquences mais man nangu naa jël risque bi. pour que au moins les fondations. dëgg mooy ñi doon défendre l'idée du mandat unique. Voilà. c'est-à-dire nga ñëw jël un mandat unique nga pare pour def un mandat unique forcer les réformes euh, yi nga xam ne moom la ñu soxla sur tous les plans euh, quoi qu'il puisse vous quoi qu'il vous en coûte. léegi nag li ci am solo mooy Sénégal dañu dañoo atteindre mass critique de de d'électeurs yoo xamante ni xam nañu lu baax xam nañu lu bon. léegi bokkutuñoo ak yeneen dëkk yi nga xamante ni dañu voté nii parce que dañu laa jox kilo ceeb wala kilo dund déedéet Sénégal on a atteint la masse critique moo tax peuple bi ñu yor homme politique yi dafa mel ni xamuñu leen on a un peuple boo xamante atteindre le niveau de maturité il est très exigeant moo tax bu ñu naxante ñun nañ na nangoo def sacrifice bi pour suñuy doom bu ñu ñëwee du ñu benn problème mais bu bu ñu ñëwee nekk ci lu Abdoulaye Wade nekkoon ci lu président Macky Sall nekkoon. oui c'est bon on va subventionner lépp foo jëlee xaalis subvention bi mais bor cest à que génération bii di ñëw mais président Macky Sall il part il nous reste il, il vient on lui donne on lui montre un, niveau d'endettement de deux mille six cent milliards il part il nous reste quinze milliards keneen bu ñëwee jomaay ñëw ne ah comme man bor bi leb bi moo gën a yomb di leb bàyyi ñu fi trente milliards keneen ñëw keneen ñëw après